Abu Sufyaan def loolu yonante bi daal di koy tontu ni ko laa tasriba qaala laa tasriba aleykum al yawma yaxfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin daal di koy tontu rek ni ko ak yeddel kon du leen jot tey yàlla na leen yàlla jéggal ndax ku bari yërmande la noonu yonante bi continuer ab doxam te booba mi ngi woor nit ñi it ñi ngi ci koor ba mu àgg fu ñuy wax alkadiit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 yonente bi dafa Omar ibnu Xataab muy kii garde mu doon gardien bi mu jiite ñiy garde arme bi noonu Abbas ibn Abdul Muttalib ginnaaw bu jullit yi wàccee ci mar Zahran mu jël gileemug yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di koy war euh, génn di sàkko di wut mat bi mu génnee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 abo sufyan ne ko sawara wu mel ni de musuma ko gis musuma gis af ma butal ni nii waaye na badil ni ko lii de nani naa ne arma bu xusaa la ñoom xare bi abou sufyan ko mukk xusaa toluñ ni bari woon ni seen sawara yi mënta doon mënta sawara wu tol ni amuñ ko mbolo mu tol nii amuñ ko abbas nee ma xàmmee kàddu abou sufyan daal di koy ko aba hanzala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 nee yonente bi ni ma Abbas demal ak moom ca sa grax la boo xëyee nga indil ma ko nee noonu laa ànd ak Abu Sufyaan Gallo ba ma xëyee ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ko yonente bi gisee ni ko way xàkk ni ko ay gore Abu Sufyaan ndax nag jotul ci yow nga xam ne yàlla rek kay buur nee na Abu Sufyaan ni ko jote naa la sama ndey ak sama baay xuma ku la gën a lewet